Bienvenue sur Salam Vision. dellu di santaat borom Tuuba mi ñàkk moroom du kenn kenn du moom wax ji ma wax dëgg la Cheikh Mourtala Mbacke moom Cheikh Moustapha Fallilo moo tax ma ñëw di wayaat way ku am solo man de bëgg naa li waji laayi xaalixina ak jëm bi Seexu Xadim gëm naa kenn bañu man de li waji laayi xaalixina ak jëm Seexu Xadim gëm naa kenn bañu man de li waji laayi xaalixina ak jëm Seexu Xadim gëm naa kenn bañu Seex Bamba Seex Fallu ak Seex Mustafa Falilu gi ca man xam naa kenn gënu gayndee fi nekkoon ba dem jur gaynde bàyyi ko fi gii gaynde laa gis mu laa biir lool du fàdd mala yaa neex a xam naqaree xam yow yaara tax te ñagas yow yaa wa yof toyu yaa dis gan kenn yabu la jub nga jubbal nga mbooloo mi topp ci yow réeroo bi laay réeroo kenn ko jub bëgg murit yi laayeen yi tiijaan xaadir rek ña amul tariixa ñépp la naw naw loola kenn si la fajkaatu aajo nga neex ngaa gis ne doo tëju kenn ku ñëw sa kër bu nuyoo nga fay ko miin nañu la man de bëgg naa la li waji laayi xaalixina ak jëmmi seexu xadim gëm naa ni kenn bañu man de bëgg naa la li waji laayi xaalixina ak jëmmi seexu xadim gëm naa ni kenn bañu man de bëgg لوجه الله خالقنا ak jëmm Seexul Xadiim gëm naa ne kenn bañu la kenn bañu la danga waroon jafe lool far yomb ñëpp la xam doo ndamu doo bàkku doo rëy lu gëm nañu la doo jàdd doo jedd doo xam pëkk doo mere nit doo ware doo lore doo jànnee ko bon xamu la ngottoo na yoo bëggewoo siisoo wexoo soxoroo naxaate woo gisaloo yow mii ko bon sori la doo yàq doo yàqe doo xas nit ko bon defar yàlla na fi yàgg te amin ko am solo nga yàkkamti woo saalitoo yaa muñ ba jot ci sa cër masoo di ñaaw njortu moo tax bur yàlla sedd na la wayu ngir bëgg xaalis donte sax bëgg naa ko du ma fàtte fii ak fee bur yàlla fàttewu jàppal ma kóllëre gi duniyaa wa aaxiratam foo ne ca aljana naa xam foofa ñëw ñuy way waaju baax war na moo tax man la ñëw way man fàllu xayra sa doom ji tey mu nekk ay jigéen yoo xamante ne ay jigéen yi gëm seen bopp lañ jigéen yoo xamante ne ay jàmbaar lañ tey bu nee jigéen ñu mën góor tey jàpp naa ne tey ji ñii ñoo tax ñu jigéen ñu mën góor tey nag ñu am loo xamante ni tey dañ koo fas yéene def muy dañoo yëkkati seeni benn bende war koo def ay ndogu waaye li ma ci gën a neex nag mooy jëm Serigne Fallou ba nga ne jël nañ ko nag ne ko fàng nag xam naa ne Serigne Fallou moom fu ne fàng rek gëm yoon ba day leer balaa boobu nag dañ koy bàyyi mu nuyoo yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax la jox sa wàccuwaay maa ngi leen di fay di leen jox seen wàccuwaay ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonente bi sant sama sëriñ Serigne Fallou euh, maa ngi sant ñi ma àndal ñëpp sama collaboratrice yi ak sama collaborateurs yi nga xam ne ñoo ma jàppale ba sama fondation bi taxaw waaw ñun nag social yàgg nañ ci c'est na dañ koy doog a jëmmal wutal ko tux muy maanaam di ko tuddee fondation Amina Falilou ndax man sëñ Fallou damaa dimbali mais social moom yàgg nañ ko def ay at te mosuñu xalaat sax di ko def comme nii di ko fësal mais comme li ñuy wax ne nit ñi ñoo naan ma faaw ngay fësal li ngay def loolu moo waral sax ma xaw koo fësal nii mais social discrètement laa ko daan defee et social bi yemul ci ndogu yi rek ñuy joxe ñu ngi ci pouponnières yi ñoo ngi ci famille nécessiteuse yi ñoo ngi en même temps tamit ci di dimbali néew di doole yi ak ñi jigéen ñi nga xam ne leen di tuut dañ leen di sonal di ji dimbali tamit xale yi nga xam ne dañ leen di maltraité tamit loolu yëpp dañ ciy dox di dimbali nit ñi si bu ñu feebaree maanaam comme li ñuy wax fondation social la son but est le but social loolu la pour di dimbali nit ñi daal rawatina nag daara yi suñu focus moom objectif focus mooy daara yi daara yi mooy suñu objectif parce que daara yi ci la lépp nekk. loolu moo tax te bii sax nekkul comme nii bii nekkul peut-être piqué ñu ngi fiy doog a ñëw comme sànq ni nga ko waxee dem nañ si àll bi defoon nañ àll bi def nañ fa ay daara yu bëree bëri compté euh, nañ tamit suba incha allah dem secteur yëmbal incha allah bu soobee yàlla mais tey moom ñu ngi piqué kontaan nañ ñu ngi. tey jii daal ñu gis ni foofu sax balaa ngaa tàggoo dafa am lu ndaw loo xamante ni dama koy bëgg leeral tuuti. ci askanu Sénégal ci askan bi nga xamante ni parce que jigéen ñi mel ni dafa am loo xamante ni tey jii buñ ci doonee tey mënoon nañoo tey ji pare nekk ci leneen waaye bu buñ demee tey bu gëstu ni weeru koor dañ cee nekk. te am na ñoo xamante ni dañuy woor ba ngoon jot te duñu am lu ñu ndogoo tey jii ñoom yëkkati seen i moyens tey ji di ko ci def kon tey ji yaakaar naa képp koo xamante ni pare nga tey ji ngir bëgg jël sa alal te ngir bëgg koo def ci néew di doole yi te bu ngeen ñëwee tey fekk yaay boo yu mel ni tey ji day jarax tey ngeen yëkkati tey ji lu mel noonu jox leen ko ndax gëm naa ne bu leen ko joxee ak ñoom tam la ñoo bis buñ ko doolelee fa ñu war a jëm yaakaar naa ne askanu Sénégal dootuñu xiif dootuñu son mais balaa boobu nag am na lu des fi buntu bi la mais nag la ci karam rawati bën ndax ci biir leen jëm dama koy bàyyi mu tàggatoo rek après ñu dugg ci biir ñu am lu bari xam dañ leen koy wan ci wàccaayu ndog waaw ñu ñoo ngi dem ñoo ngi nii di dem ci daara bu ñu wax daara oustaz Sall nekk suñu oustaz bu baax bu ñu jàngal ñu leen di dem yóbbul ay ndogu defaale fa ay ndogu aux alentours de tali bu mag incha allah léegi-léegi si daara incha allah gannaaw bi yaay booy waxee ba pare am na nag loo xamante ni yaakaar naa ne fu jigéen nekk góor a nga fa te am na loo xamante ni kenn dootu kon naa table am na nag koo xamante ni Baye Fall la ci biir baay Fall yi dama koy bàyyi mu nuyoo mu wax ñu ñoom seen tolluwaay tey ji ci bis bi lan la Fall maa ngi lay ziar. Murid doolu ziar bu wér di bëggee ñëpp di sant ñëpp di wax olof Ndiaye dafa faral di wax ne woote gisee say mbokk di bëri koppar rafet jikkaloo ni mën ngaa xew lu nekk luwe sées luwe baas mais doomu aadama mën leen ki Serigne Bamba ki mën na moo seeri dama la defar démb samay ndogu parce que xoolal naloo ma sax mais jëmm ji da koo jar te wolof Njaay ne loo ko jar moo ko jar moo tax te bés bi da ko da ko laaj te yoon wi yoonu Cheikh Ibra la woon barki Serigne Bamba kon def te yàlla tax boo koy def nit da lay fekk si nit ma naa jóge fu nekk kon bu ñu ñëwee rek jëmm jee ko waral ak lan ak yàlla mu sunu borom xam ne moom lu baax rek la bëgg si doomu aadamam kon moo waral ñu ñëw fii ak sunu teewaay di gërëm nag ñëpp du yow tamit lii macha allah yow déwén yàlla na fekk nga yor télé bu mag ba yor si ba yónnee ay ay employé ñi dem di caméra comme nii parce que yow Baye Fall nga da ngaa yaatu di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Maam Ahmad Bamba Xaadim Rasul di gërëm ñëpp bis bi lu mu si nam rek yàlla na ko yàlla antul daara ji ñu dem nii yombul de barke alxuraanu karim parce que nga nit woor ba heure bii Baye xoola xoolal li ma lay wax war naa toog sa gaale ndogoo ko mais nga da ngay jël jox ko yàlla yi parce daara ji barki Serigne Bamba ay ndaanaan na fa ne ay champion man manuma rëccu li ma duggul si daara ji man sama ndaw bon dama ko aneer heure bi kon maa ngi si daara wóor na Serigne Bamba di wax nag barki alxuraanu karim nag wax su bari rek day soof waaye foog ñu wax te la ko jar moo ko jar bés bee mel noonu bés bee taaroo noonu li yombul de Baye Fall li yombul parce que lii xajoon na si poos mais ngay da nga koy defal yóbbu ko si ay jàmm wóor na sëñ Bamba kon da war a mën a gëstu yàlla xam ko la gën a teral doomu aadamaam kon loo leen teral gis ko wóor na Sëriñ Bamba kon loolu laay nuyoo loolu laay teraloo après nag tas kafe dañ koo teg te mu ngi tàng buñ seggee ba si kanam question boo ma laajaat moo tontuloo ko parce que jaar nga ko. xool sedd na Baye Fall yi na nañ jàmm am na kon ci kanam rawati bët damay ànd ak ñoom wan leen convoi bi tuuti ñu dox dem ci biir daara ji ñu wan leen lépp mais am na keneen koo koo dendal koo xamante ni du ñàkk tamit ma laaj ko. mais Fall maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw ñuy ziar bu baax. naka jàmm ji. alhamdulilah tawfeex. tolluwaay bi ak bis bi lan la. waaw instant yi sant sëñ bu wër baay ndax lii rek kontaan la quoi wax dëgg yàlla daanaka li ma waroon a wax yëpp sama grand bi ma àndal wax na ko quoi leneen lu ma si sànni rek damay yàqu quoi ñu ngi santaat sëñ Fallou wër rek waaw sant sëñ Fallou rek góor jàmm rek. xol sedd na xol sedd na kon man ak yéen. ne woon naa leen nag bëgguma woon feeñ waaye feeñ naa nag waaye Baye Fall dégg nga li ñu wax. lu gaa yi waxoon dëgg la jar nga ko jar nga ko rek lu gaa yi waxoon dëgg la tey xoolal eh ñu gudd tey ñu gudd dëgg la. Eh, eh, yéen ñii ko si. wax tàmbalee ma wax dëgg la musulu sayu tala Seex Murtala Mbàkke la moom Seex Mustafa Fàllilu waram tut moo ma ñëw di wayaat way ku am solo man de bëgg naa la li waji xaalixina ak jëmmi Seexu Xadim bañu la man de bëgg naa la li waji laay xaalixina ak jëmmi seexu xadim gëm naa kenn bañu man de bëgg naa la li waji laay xaalixina ak jëmmi seexu xadim gëm naa kenn bañu la seex bamba seex fàllu ak seex mustafa fàlliloo gi ca la man xam naa ni kenn gënu la gaynde fi ba dem jur gaynde bàyyi ko fi gi gaynde laa gis mu laa biir lool du fàdd mala yaa neex a xam naqaree xam yow yaara tax te ñagas yow yaa wa yof toyu yaa diis gan kenn yabu jub nga jubbal nga mbooloo mi topp ci yow réeroo bi laay réeraroo kenn ko jub bëgg la murit yi laayeen yi tiijaan xaadir ak ña amul tariixa ñépp la naw naw loola kenn siku fajkaatu aajo nga neex nga gis ne doo tëju kenn ku ñëw sa kër bu nuyoo nga fay ko miin nañu la man de bëgg naa la li waji xaalixina ak jëmmi seexu xadim gëm naa ni kenn bañu man de bëgg naa lool far yombu ñëpp la xam. yaa am rett ci biir fi nga xam ne mu di salaam Vision Salam Vision képp ku ko dégg mooy jàmm ak salaam tey ji ñu fekk leen tey ci biir jumaa ji tey rek suñu yaay boyte la ñëw euh, moo la seet woon tey ji ñëw tey ji taxawaay bi nga ne tey ji mu ngi koy def tey ci digg Pikine naka ngeen ko gisee. Ah, alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi di jaay ci fal suñu jëwriñ sëñ Fallou Mbacke ñun nag ñu am lu di ko gërëm di ko sant. parce que booy yëkkati dara di ko def ci doomu aadama doo leelu ginnaaw mu yàlla da lay jëmale kanam lii mu sas bi mu sumb nag yàlla na ko ci yàlla jëfal barke ak xéewal te yéen ñëpp ñu teew ko ay ñu bëree bëree bëri parce que àddina nii rek la koo sa morom da koy dimbale du rëy wala pour wane pour kii da koy def ngir yàlla booy def ngir yàlla nag yàlla dina defal ngir yàlla kon nag yal leen yàlla jàppale liggéey bi mu sumb yàlla na ko ci yàlla defal xéewal ak barke ñu téew ko ay téew ñu baree bare mu yàgg koo def ba mu sut lim ci yaakaaroon yëpp yàlla gën ko ko fulandil waaw man nag dangay ngay waar man mun wax ci lu dul lu dul kii daal daal kontaan nañu. foofu foofu noonu balaa ngaa tàggatoo tuuti dafa am ci lu ndaw loo xam dama ca bëggoon xus ak yow rek même bu nekkee benn kàddu sax wala ñaari kàddu sax ñu am loo xam dañ ko mën a taatanal tuuti tey ji ci li nga xamante ni tey koy def tey ji bu fekkoon ne tey ji euh, defin bi tey da ko doon yamale tey ci bund këram wala tey mu def ko ci digg mbedd ma am ñoo xamante ne fa la koy yamale mais tey ji moom bi mu njëkkee taxaw dane day njëkk xalaat daara ji njëkk xalaat jumaa ji njëkk xalaat imaam yi taxawaay bi ak bi loolu boo ko déggee rek yow sa xel ci la war a dem xam nga doomu aadama di nit simple simple yàlla wàcc ñu ci suuf pour ñu jaamu ko bu ko def pour boo ko wàccee di ko boo la wàccee suuf pour nga jaamu ko da nga ko war a jaamu ci ni mu ko bëggee lii mu def ci daara ji lu war la lu ko war la parce que imam buñ jaaxlee ci imam la ñuy dem bu ñuy tudd ci imam la ñuy dem lu ñuy def dañuy jiital imam te daara alxuraan moom bu mu nee daara rek lay jeexalee parce que alxuraan bi mu wax te moom day ñëw fii di jokkonte kii ñu ñëpp ñu xam ko kon loo xam ne kon lu ko war la waaw lu ko war la kon bu ko defee woon ci koñam dina am dina am porté mais moom ni mu ko gën a yaakaaree pour mu gën a am porté farce fii mu doon ñëw di gis xale yi ak daara ji ni mu mel mu am seen yéene ak yéen kii mu def ko ci kon loolu rek la yal na ko yàlla dimbale <laughs> kontaan rek ndax daara ji moom duma ma gan soxol tey ji lan la man daara laay jàngee oustaz bi sama xarit la naayim bi doon wax ni sama nit la ma fiy ñëw mu may gis oustaz bi xale yi tamit daara ji ñu miin ma lool nag xam ma wax dëgg yàlla ma yàgg fee ñëw di jëflante ak ñoom teraanga di jëflante ak seen oustaz teraanga kon loolu du nekkul tey la la première fois wax dëgg yàlla ñu baax lool nag yaatal ma ma fi jàngee xam-xam yu bëri ñu nekk ay mag mais jox ma cër nag waaw dëgg yàlla moo première édition bi fii ci Dakar ma defee ko fii nii si si si si Pikine si daara bu ñëw daara Oustaz Sall jàkkaarloo agence Free bi wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañu. comme maanaam léegi dañ lay bàyyi dañ lay bàyyi nga dem joxe ji ndog bi ànd ci ak nit ñi jaamu ci yàlla. incha allah kontaan nañu merci yal nañu ko teew doon yu bëree bëri. kon tey jii pare nañ fi ñu ngi dem wane ci ñi nga xamante ni noonu lay joxe ndog bi. incha allahu rabbi lépp ci biir Salam Vision ñu ngi dem nag wan leen xamante ni moom la ko waaw kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen waa Salam TV di nuyu ñu fi fekk ñëpp vraiment di nuyu la grande dame ñu fekk aussi muy def li nga xamante ne vraiment sociale la jëmale ko ci daara yi mu nekk lu acte bu rafet boo xamante ne ñëpp war nañ ko magnifier moo ànd ak euh, suma coordonnateur nekk officier d'état civil fii si commune de Djiddah Thiaroye Kaw Alassane Wane moom sax moo waroon jël kàddu mais comme affaire dafa xat ma ne naa ko yóbbaale rek ñëw fi nag ci turu monsieur le maire Modou Gueye euh, ci turu Modou Matigna nga xamante ne moom moo topp ci moom nekk adjoint au mu dénk ko lépp loo xamante ne mooy jëm ci wàllu social wàllu finance yooyu mu am nag ay yóbbante yu ñu joxoon maanaam mu jëm ci wàllu suukar xam na ko loolu trop nag mais comme affaire dafa xat te démb lañu ko wax ñu noonu dañuy jaar rek def si suñu participation mu nekk loo xamante ne xeeb nañ ko loolu nag waaw suukar saa ngi ne ci biir xam naa après di ko filmer mu nekk ay mu nekk suukar boo xamante ne vraiment suukar bu bu mokk la tamit euh, mën na far tur daal mën na far tur waaw loolu daal vraiment moo fi indi woon du politique du dara nag parce que ñun sax suñu bopp dañoo jaar ci daara suñuy bàyyi dugal ñu daara ñu ñu xam lu nekk ci daara donc lu ñu ci def rek dañ ko def ngir xale yi di ko ngir yàlla wàllu politique du dara kii tey nekk maire nitu daara la donc lu ñu def ci daara rek maanaam dafa dafa delloo mbaat ci booy booy wa di gërëmaat waa Salam Vision bu baax a baax di leen wax ne leen nag xam nga yóbbante moom dafa diis mhm. waaw nañ fi lu mu huit sachets yu nga xamante ne yëpp yu cinq kilos la suukar ñu ne woon koy teg ci ndogu yi jàpp ne ko suñu suñu camarade bi suñu jigéen mi nga xamante ne vraiment moom it ñu koy ñaanal yàlla lépp li nga xamante ni ñu ngi koy mbébét ci wàllu daara yi yàlla yombalal ko ko ba am ci ndam bi mu ci séentu xam naa bu dee tamit coordonnateur mën na cee sànni ñaari kàddu mhm. kon tamit moom daanaka sax wax na waaye nag teewul tamit dafa am benn kàddu goo xamante ni euh, da ko ci dolli rek parce que yaakaar naa ne wax waxaat taxul ñu ne wax na waaye jëfin ba rek ak tolluwaay ba. waaye bi nga xam yaay booy def na ko. waaw ma je crois que sama camarade bi wax na lépp mhm. euh, Moussa Top di remercier aussi la dame là la dame de fer mais def naa lii boo ko defee euh, monsieur le maire nga ko defal mhm. parce que lépp luy dem si daal monsieur le maire. ku koy defal loolu rek bopp moom nga ko defalal quoi di ko remercier bu baax di wax yàlla na ko def ay déwéni déwéni déwéni déwéni a gën la ko yombalal merci beaucoup. waaw waaw waaw ñu ngi dem si kii wu ndogu bi séance ndogu bi comme je le avais à l'avance fekk ñoom accès guñu defe naa si interview bi si kër ga maa ngi lay naan j'ai reçu le soutien de mon maire de commune muy le maire Mamadou Gueye may réitérer sama collaboration ak par le biais de euh, euh, Mor Maty xam nga moom moom kenn du moom dëgg yàlla parce que comme li ñuy wax rek Mor Maty mooy Modou Gueye mu nekk kilifa bu baax nag bu responsable nag bi mu yëgee sama bës bi lépp lu mu mën wax dëgg yàlla def na ko ci boobu ba léegi mi ngi may woo Amina Amina en plus dara gënul neex mu yow délégué ay nit ñu ñëw ci sama bës bi kon xam nga bés kenn nit kenn du ko xeebal bésam kon su ma xewlee sama mère yónnee ci jël alalam ba pare def ci yónnee si ñoo taxaw xam nga kon man damay remercier Modou Gueye remercier moo Mati mi nga xam ne moom euh, dëgg yàlla dañ leen di ñaan ñu yàgg ci mairie bi euh, directeur bi ñu mujjee fal suñu maire muy directeur des impôts des domaines dañ koy ñaanal mu yokk ba ñuy dégg monsieur le ministre ndax ku baax la si un jeune dëgg yàlla may gërëm Moussa Top mi nag mu nekk DG nekk ku baax ku loyal tamit di gërëm le coordinateur dëgg yàlla tonton Alsane ñoom tamit ñu nekk ñu loyal nekk ñu oyof ñu baax su ma demee dañuy collaborer ak man di waxtaan ak man mais dara gunul ne ñu jug ñëw même bu ñu andiwul woon dara dafa neex mais dañu andi boobu ba léegi ñi ngi andi ba tey ji gis nga bi ñuy ñëw ne dañu àndaale pour lan ñu yokk suukar bi bu suukar bi saful sans compte lañ ma njëkk a jox xam nga bi ñu nekkee si kër ga déjà gërëm naa leen fekk sax ñëwooguñu kon loolu je le di haut et fort j'ai xam nga l'appui de mon maire de ma commune au niveau de Djiddah Thiaroye Kao je réitère mon engagement et mon collaboration envers eux di ñaan rek ñu liggéey pour le bien du pays parce que social bu ñu koy def maire la ñuy jàppale te xam nga amuñu lu tamit suñu commune te ñun commune bi moo ñu ñor dëgg yàlla kontaan nañ bu baax merci beaucoup.